que mu di rapport yi ak li na xam ne que mu di tolluwaay wi nag ba tey ji yëf yi mi ngi daal di dox ma ni kon dossier Mamour Diallo aussi am na lu si daal di yeesani leen daal di yegg si itam si les déclarations d'Ousmane Sonko waaye itam la sortie de Tahirou Sarr waaye itam itam benn enquête bi nga xam ni itam la France moo ko daal di def jëmale si génn kàdduna

suite à l'interdiction préfectorale d'aller tenir ce euh, euh, meeting Force. à daanu Oui, mais euh, tout d'abord il y a une interdiction bi. Hmm. dama je demande c'est tout simplement une question hein, avant de continuer Pardon. <laughs> Ouais, bon, je veux continuer, mais je veux euh, bon, je veux aussi Le factuel. voilà quelque chose de factuel. Est-ce que vous avez vu quelque part hein,

tous les coups sont permis, sont permis pour anéantir l'autre. Hmm. Tu as vu, moi j'ai écouté Barthélemy Diaz. J'ai écouté l'intégralité de son discours. Tu as vu ce hmm. que mais automatiquement mënoon nañu nag aussi fan la préfet ganteler cette manifestation bi ñu def parce que tout simplement Ousmane Sonko fay jàll man gisuma ko gisuma ko su ma ko gisoon nag ko mun atte waaye itam bu fekkee ni am na jóge naa si loolu waaye bu fekkoon ni am na itam buñ ko analyser scientifiquement aussi et techniquement mun naa ne. waaw xam nga lu tax ma ni mun naa ne xam nga si contexte élection yi ñu nekk bëri na ay violence yu ñu gis ak yu ñu nemmeeku. Hmm. yu ñaaw a ñaaw yu bon a bon. Hmm. maintenant est-ce que kaaraange la ci bàyyi ñaari coalition yoo xamante ni aujourd'hui coow li ñoom ñoom ñaar coow li ci seen diggante la ne. ñu di daje ci benn endroit. évident. non est-ce que l'eau xel mën na ko Il y a une évidence. mais l'État aussi a un rôle de de prévention de prévenir d'alerter certaines situations est-ce que l'état État dina ko est-ce que le préfet dit ko non parce que vous ëllëgee bu ko année bu ëllëgee moom la ñuy faillir à sa mission de prévention dama ne la nag bu dee am hmm. tu as vu kon jàpp naa même bu c'est dans l'ordre normal des choses kenn du bàyyi ñaari coalition surtout coalition yoo xam dañoo bëri coow mm. ñu di d'ailleurs mm. te ba ne na fa am mm. lu ne na fa xew na fa xaw violence bu ne mën na fa xew kon ni parce que gisaguma fenn fu un document un communiqué du du du du du du préfet montrant véritablement les propos de Barthélémy Diaz. mais euh, mais Serigne le fait que peut-être kàddu yi du xaw a rejeté mooy dorénavant léegi euh, dañuy joxe euh, itinéraire te ku wax itinéraire wax ku nekk fa nga war a mën a demani wax na ko et que c'était évident Euh, même su li amee sax daal di koy tere ki nga xam ne que moo di Barthélémy Diaz ñoom itam est-ce que joxe wuñ itinéraire mu daal di méngóog ak Ousmane Sonko. waaw mais xam nga léegi dorénavant. waaw waaw léegi Fallou loolu mooy man tontu naa ko xam nga mooy lan léegi bu fekkee ku ne da nga proposer sa itinéraire. kan moo njëkk proposer itinéraire am da nga Quand xam. ah kan moo njëkk proposer itinéraire am xam nga man xaw ma mais je suis en train d'analyser. mais kan moo njëkk a l'itinéraire, itinéraire am. Hmm. nañ waxtaan foofu ba d'accord ci. Hmm. est ce que Pastef ñoo njëkk a joxe itinéraire wala est ce que euh, Sa Kàddu ñoo ko njëkk a joxe. xoolal man dama gëm ni preuve du contraire le sous-préfet doxal. teg na ko ci yoon ci li ma jàpp teg na ko ci yoon gis nga mbir mi nag lu ñu mën a waxante dëgg fàllu mm. élection yi ba mu tàmbalee ba léegi ba mu tàmbalee ba léegi les autorités gis ngeen ni mbir mi yëpp dañ koo teg ci yoon nag. amaana les partis politiques Sonko mu koy ŋaññi. doon teg nañ ko ci yoon. Ah, waa xam nga teg noo taxawal teg mbir mi ci yoon. Mm. weesu mënta taxawul ñu ni amul ay manquement. yow mi mën nga teg mbir ci yoon mu am ay manquement mën na ne mën nga teg ci yoon mu am ay manquement mën nga def une communication bu rafet mais day am ay manque manquement tu as vu le ministre de l'intérieur tey ci ni mu waroon a gestionner violence ak yooyu dafa am ay manquement mais tel na jël ay responsabilités mais responsabilités yi dafa des hmm. tu as vu je suis parfaitement d'accord si ñaari kuy yu nara ci mbalka xamul loola sous-préfet jël responsabilité ci ñi nga que ñoo itinéraire pour que ñom ñu jall ba paré ñeneen je ne contente pas le sous-préfet là-dessus honnêtement parlant pour vous dire vrai c'est ça alors. Euh, Bart génn na ko di ko li nga que victimisé wu euh, et tant d'autres et tant d'autres mais quand même euh, en termes de victimisation série, est-ce que jàppoon na euh, du si gagner ay points concrètement parce que génn di victimisé wu génn di wax que ni euh, dugal na jàllul Ousmane Sonko li privilégié au détriment justement de de de de de de sàmm sa kàddu et que victimisation ak sénégalais ñoo ànd concrètement sérieux. waaw mais xam nga loolu lay parce que loolu lay wut parce que si contexte élection la ñu il se victimise pour avoir benn sympathie wala benn yërëm tànge wala benn ñeewantal xam nga boo xoolee lam ci teg ci discours bi. Hmm. ci provocation la ñuy woo surtout tour deret ñuy woo. si hmm. nangam ak nangam kàddu yoo xamante ni c'est regrettable. Hmm. kenn waru ko sax tenir si ay plateau de télé. ah dafa soxla nangam nangam ak nangam mais que ku digal na xam ni et cetera nangam ak nangam du ko fi amee ñun nag on fair faire dañuy def leneen. tu as vu xam nga communication même si on ni communication il y' a un but recherché quand même. le s'invite mais loo lay wax. Ah, mais c'est la wax xam nga Tu as sais, tu tax vu, ay train sax la hmm. tu as vu ñaata a xaw xam nga des propos extrêmement dangereux nga ko di wax ba di ay télévision di ko ça. en hein, loolu c'est extrêmement grave ngay wax wax ju ñaaw ju toll noonu wax ju dëng ju jubadi ay chaîne de télévision jël wax jooju di ko télévision yi ñëpp di seedaan ci àdduna bi on ne respecte même pas les gens d'autant plus que yow li nga wax amul amul. alors euh, mi ngi exactement par rapport ak li nga xam ne que moo di euh, wàllu mel mbokk ma fatil leen ni ki nga xam ne que moo di euh, euh, Barthélémy Diaz moo daal def benn sortie euh, nak démb muy daal di dénoncer encore une fois la décision préfectorale daal leen ni très ñu daal di amal senu que li nga xam ne mooy seenu que meeting te ji dina xam ni tam ñu ngi koy autoriser exactement le parti Pastef ñoom itam ñu koy daal dénonce ba daal si yegg ni itam fu mu toll nii wàllu que maraboutage dafa daal di invité wu si langue politique bi booral nak mu daal di jàpp ni Ousmane Sonko dafa mu ngi koy te itam loolu la war a mën a matal moo waral mu leen daal di jéem yëngal bëgg a euh, yóbbu dëkk bi euh, si kaw exactement alors euh, ginnaaw loolu itam dañuy daal jàllal si leneen laataw ñu ñu daal